Serigne Saliou Sarr mi nga xam ne moo nekkoon xalifa Serigne Bassirou saar te bàyyeekoo fi wujju suñu boroom jamono bi Serigne Moustapha Sarr moo nekk xalifa waa kër sëriñ Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba te ji nag mu àndoon nag mbooleem njabootug Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba yi dem ci Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yeesluwaat jaayantewaat ak Serigne bi jébbal ko mbooleem njaboot gi te it fas yéene koo déglu ci lépp loo xam ne moom lay digle. ndax bokkal Serigne Bassirou Sarr yëpp. àndal it ñi nga xam ne magam yu baax ñu fi yóbbu ñu leen jur muy sëriñ Abdou Lahat di doomi sëñ Sang mm-hmm. ak sëñ Bas di doomi sëñ Sadio mm-hmm. mu ne nag daa ñëw ngir ànd ak njaboot bi joxewaat boppam mm-hmm. ndax na ne naka jëkk kër sëñ Basiroo ndax sëñ Basiru Sarr daana wax ne lépp ñu ma mel rek sëñ Basiroo tax mu mel te moom mi ngi dukkee waat sëñ Basiru sëñ Sarr Basiru waaye nag ginnaaw dafay toogee jataayu sëñ Basiru Sarr te sëñ Basiru dénkoon leen na leen ku fi nekk ci lalu sëñ Tuubaa bi na leen yërëm ñoo tax ñu bëgg a ànd ak njaboot bi rek rakkam yëpp ànd nañu moom seen mbokk yàlla yooyu ci def sëriñ Tuubaa liggéey bi bokkoog man bi waaye sëñ Moussa mi taxaw ci bu rafet bu mat sëkk bu ànd ak xam ne gëmoon naa ne lam doon ak def yàlla rek taxaw kon bu yàlla ñëw coobareem dañ di ko liggéey loolu liggéey ba nañ ko seere loole ndax ñu ñaanal ko ca wax dëgg yàlla taxawoon taxawaay bu rafet moom sëñ Moustapha mii fekk sëñ Sonia bi mii itam ba sëñ sa ba sëñ sang noppaloo rek ñoom ñaar laa doon jokkool sëñ Sonia boo may woo di wax ak ñoom sëñ Moustapha di ma woo ci turu sëñ Saliou di wax ak man ngay di ma yëndu ci ñoom maanaam nag ñoom liggéeyal la foofa liggéey booba loolu lépp matoon te rafet waaye rafet ngaa mat ga nag ñoom ñii dañ caa doxoon jéego yu rëy loolu laa la bëggoon a seere laa tey ñoom ñaar ñii dañ ko dañ caa doxoon moo tax sëñ Moustapha itam amee doxin woowee rek na doxaat ci mbir mi itam xam leen doon ci boppam dara ñoo di di ñu da musta doon ci boppam dara daa woomatu ni koy jàngalee yombal ak woomatu dana tax ki bëgg a dem dem ngi yomb loolu lañ seetlu ci moom loolu nag lañ bëgg a seere ci kanam bokkam yi ci sa kanam seere la noonu la ñu àndewoon mbirum sëñ sang ba mu demee jàll mbirum sëñ saaliwu bi sëñ saaliwu demee ba mu ko yëglee it xam xëccu ca waxu ca ñoddiwu ca lépp li muy wax rek mooy na ñuy jëlee ci yow ndigal loo ko ci digal mu def loolu lañ doon lañ àndee moom ba mbir ma jeex waaw lañ doon defar. ñu gën a sant bu baax. ñu gën a sant bu baax rek. alhamdulilah gën naa daal. alhamdulilah alhamdulilah doxal na lépp rafet na. alhamdulilah ndax li ci am solo rek dëgg bi. yéen ñi ngi posté bi. dëggu yeeg taxawaay bi. Mm-hmm. moom ñoom ñu weesu ñoom lañ ci war lépp def ko ci. Mm-hmm. sëñ Saliou yéen ñii taxawaay bi ngeen war a taxaw yëpp. Mm-hmm. def ko na mu gën a rafet mu gën a mat ko gën a bëgg kon nag sama dal daa gën naa dal. kon gën naa sedd. sama yaakaar gën naa dolli. maa ngi lay génn maa ngi leen di maa ngi di seddalee sama wala saa yi man. Ah, tey waaw sax dàkk ci jàmm sëriñ Moustapha saar mi nga xam ne jamono bi mooy xalifa waa kër sëriñ Basirou saar jaamu sëriñ Touba fas yéene taxaw temm fa nga xam ne fa la waajuram wa awoon di sëriñ Basirou saar loolee mu fas yéene ko ànd ak mboolem njaboot gi ak taalibe yi rawatina mag ñi nga xam ne ñoo àndoon nag waajuram wu tedd wa